ba pare laltaay ko ak jëf wane na ni lii nga bindoon fan yi dëgg la ku ko jàngoon sax dina xam ni dëgg la ndax fa mu jóge dafa sori ndax ni ko tubaab yi waxee rek lépp lu nit di wax mu jóge ci xol day jub te nopp ba koy taataan tamit da koy mën a taataan taataan boo xam ne bi dara du ko ca rëcc moo wane seen tànk yi tey nit lii nga xam ne defal nañ ko diine génnewu leen ci seen bopp nit nag lu mu bokk lu ne te kenn boolewu ko ci kudul ki nga xam ni moo yor dogal yi muy suñu borom subhanahu wa taala day am fulla xam ni ca la bokk la mu bokk mu ñëw jël wàllam ndax nit lu mu bokk lu ne du xaar ñu ni ko tobbil nañ la mooy ñëw sax tobbil boppam te lii ñu bokk muy diine ngeen tudde ko yéen seen cadre unitaire lu dalal xel la association yi nga xam ni ñoo ne ci réew mi dajale kër diine yi nga xam ni ñoo nank réew mi moo xam nu mu tudd ci association ak lu leen federe lu ëpp a la ndaxte dina nekk maanaam barikat bu rëy boo xam ne bii dina ko ñàkk réew mi ba am na lu bari loo xam ni lenn rekk moo leen mën a téye mooy lu mel nii ñi nga xam ni ñoo bokk ëtt yi te ëtt yi boo koy seet du woon ay ëtt boo doxee tuuti rekk ci taarix di nga xam ni ci benn ëtt la jóge ëtt nag bu barkeelee ëtt yu bari dina ci dina ci juddoo te bu kenn xamit fan lay yem ndaxte mag ñi bi ñuy jóg di xeeñ ci lu baax di topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg liggéeyal diine dara ñoru leen woon lu dul am ngërëmul yàlla dugaluñ ko woon nag ci benn angle boo xam ne bii day xat mu nekk loo xam ne lii dafa nekk confessionnel lu xat ndaxte diine xatut lépp loo gis mu xat rekk génn ci yàlla xatut ndaxte yàlla lépp ma yaa ndax ñi ko bokk bari te ku ci ne am nga ci sawal waaw kon nii ngeen def ni rafet na lool rafetlu nañ ko tamit lii nga xam ni mooy li ñu fi naalal néegu yàlla bi ñun ñëpp ko bokk ñun ñépp ko bokk kenn amu ci lenn loo xam ne lii ëpp leen nga ko sa moroom bi nga xamee ni bii mag ñu baax ñi xayma nañu ko Euh, naal ko mu tàmbalee ca Cheikh Salih mi nga xam ne bii mu rëddoon plan bi ànd ak njabootam ku baax gi ñu taxawal ko muy dox ba mu mel nii daanaka ñun ñépp ñoo ko bokk ñoo bokk taxawaay bi kon amul kii ci tarixe bi la bokk amul kële ci bële la bokk lépp ñoo ko bokk ndaxte lii ñu def a taxut dara taxul lu dul jëm ci sama borom jaamu yàlla ba pare nag di ci sàkku ngërëmu sama borom kon fii ñun ñoo ko bokk waaw ngërëmul sama borom rek lañ ci doon wut tey ñaan yàlla yàlla defal ñu ko ba nga xam ne bii donc ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy wut yaakaar ji jenn la jëmu bi it benn la waaw kon ni ngay def sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax barab baa ngi ni seen barab la lii ngeen fi indi tamit wax dëgg yàlla euh, war na ndax yéen a ko seen barab la lu ñu fi def ñoo ko fi bokk ñoo ko bokk ñoo ko bokk ñoo ko bokk te matale na it ndax téeméeri junni du lu ndaw ëpp nay xeeb lu jëm ci yàlla moom yàlla du naw rëy bi jëf ji lay naw pas-pas bi bu newoon cinquante mille milliards te pas-pasu liggéeyal sama borom ak gis lu mel nii nga bég ci bëgg bu ëllëgee nga ni lii kat dama bég naa ci bég gi rek yàlla da koy fay ah jëlale naa nag nga jël li nga xam ne lii sa alal la ni dama bëgg kat ñun ñi nga xam ni ñun ñoo waroon ne fii di ko tabax ak di yenu ci semence yi defal leen ñu ko ci ndaxte xam naa ni xaalis bi sax doyu leen ne ku sañoon ku ne di nga fi yenu móol di nga fi nàngam di nga fi nàngam ndaxte ñun lii rek lañu ameel suñu borom yàlla moom doyewul néeg bi dara lu mu rafet rafet rafet rafet rafet du fi fanaan du fi yendu waaye moomale giñ ko moomale muy pas-pas bu wér xam ne yàlla am na néeg ci kaw suuf nga xam ne dañ ko fiy jaamu loolu amul njëg te lu ci waay def lu ne jàng ngeen ko ay boroomi xam-xam ngeen la ca yàlla déel loolu moom euh, ku ci ne dina ci mas a teg sa bët waaw yàlla na yàlla na yàlla na yàlla nungu bëgg naa lool lool lool ci ñëw bi ndax ñi nga àndal ñëpp suñuy wëllëre lañu suñuy xarit la suñuy mbokk lañu réew mi dafa tuuti